وعلى آله وصحبه وخير خلقه أجمعين بوك جليدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نغلين دي نيو تا نمو غنا للإسلام دي تي جيتال سونو كليفة يتي جتاي بي تا دي لين زيار تا ورما جي غنا مات bokk yi ni ñu ko baaxoo defee mu di fàttalante ñaaxante soññante ci bu ñu dajee daje yu mel nii moo tax ñu yëkkati sunu kàddu kàddu yi nag waxtu wi xat na xam naa dañ koy tënk lu nu man ni ñu ko bëggee woon yaakaar naa duñ ko mane kàddu yi nag ñu di ko faral di yëkkati ngir di soññee rawatina nag ci bés bu amee nii solo te solo si foo ko natt weesu na ko bokk yi nañuy xalaat ñi waral bés bi muy waa barzaq nañu leen di xalaat ciy ñaan bés bu set ndax dara gënalu leen ko fa ñu tëdd waaye nañu leen di xalaat tamit ci xam ne lu yàgg-yàgg dañu leen fekki ndax li leen fa yóbbu duñu fi bàyyi amut yenn pexe ngir rëcc ci du bari alal du ko am kàttan du pouvoir du mbaax du mbon koo mën a doon ak noo mën a mel bés dina ñëw dee jël la yóbbu la nga fekki koo mas a suul ak koo mas a dégg ñu ne dee na ndax kullu nafsin daayiqatul mawt fii kenn du fi sax ñéppay dem benn benn kenn ku ne ci nun amoon nañu ko jege te gisatu leen muy waajur walla doom walla xarit walla dëkkandoo walla àndandoo dee di leen këf benn benn naan leen yomb ci biir suuf ndax xam nga kañ la lay këf yow lu tax doo xalaat ne mën naa doon tey lu tax doo xalaat ne boo tëddee tey ci guddi gi mën ngaa bañ a yow suba lu tax doo xalaat ne li ngay def mën naa bañ a àgg mu jël la moo ne de dee jële na nit ci jamono bu ne ak ci nu ne laa taatikum wa illa baxtatan ndax kat buy ñëw du la tàggu ndax xam nga ne ci lum la fekk rek ca loola ngay dekkee ëllëg yowmal qiyaam sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax yubaatu kullu abdin ala ma mata alayhi muy ci lu baax wala muy cob sowaan kon loo bëggut dee fekk la ca bu ko def bokk nañu bàyyi xel dee ci mu bañ noo fekk ci dara lu yàlla gërëmut te ñu waajal gannaaw dee ci topp yàlla akub yonenteem sallallahu alayhi wa sallam di jéem a sax ci seeni digal lu nu man te xam ne kat loolu rekk tax suñu borom subhanahu wa taala sàkk na wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun jaamu ko rek jaamu ko rek ñii ñuy ñaanal tey muy waa barzaq koo ci laaj tey xeeb na lum jaamu woon borom rëccu na lum ci jotu woon a def kon yow mi yàlla may ngay noyyi ba nga bul neenal sa senn sa góorgóorlu loo man bala ngaa dem di rëccu ne ñoom foo xam ne kat loo fa loo jëfut fii yónnee fa doo ko fa fekk te boo fa xasee dem dootoo delsi loo mën a duufale sab yóbbal war nga ko def mbokki jullit yi gannaaw loolu noo ngi sunu te di leen soññ yéen tamit ci tomb boo xam ne bu ñu sañoon ñu di ko waxtaanee bés bu set ci jataay yi ak yi ay nit danañ fay daje loolu moy lan mooy benn la sunu bopp sunu jamono ji bokk yi mel na ne noonu lislaam bi mi ngi waaj am li ñuy dund ci sunu réew mi léegi ci biir jullit ñi kenn mësu koo gis xiiroo bi ak ŋaayoo bi xeebante gi ak waxante gi lu bon weddeente gi ak dëkkalante gi fu ñaaw te ñun ñépp di wuyoo jullit ñu bokk benn buur mu yàlla subhanahu wa taala mi ñu boole sàkk moom nu te bokk no kenn nu bokk yónni ci nun muy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu bokk luñ ñu digal nun jullit yépp te ñu war koo jëfe muy waxi yàlla tabaraka wa taala ak waxi mustapha sallallahu alayhi wa sallam ñuy alquran ak sunnas mustapha sallallahu alayhi wa sallam kon ñoo bokk benn tool bu ñuy bayee ñenn ñu ne nag dañoo am aw waar wu ñu féete am jëwriñ ju leen ca jiite kenn ku ne bu fas yéenee aw mbayinam rafet ca la ko dooñ du tala lijjanti na moromam di baye ak ban façon ëllëg lay baye bokk yi wuute xalaat ak wuute gis-gis naka jekk ñu ngi fi mësutee jóg waaye mësuta tax kenn di doye dal xalaatu moroomam wala gis-gisam ci diine ji ndax kenn ku ne na mu gën a rafete rek la doon wër te yàlla rek a tax borom al madahib al arbaa yi wax nañ ko ba tey muy imaam abu xanifa imaam malik imaam alshafii imaam ibnu hanbal yàlla na leen yàlla dolli ngërëm li ñuy wute wute ci yenn gis-gis yi ñoom ñépp a warmalante woon kenn ku ne kenn ku ne nangul moroomam la mu nekk ndax ku ne ci ñoom la mu nekk am na ca lay wu dëgër wu ko ca tàbbal téye ko ca ci ñoom dundam ci xam amuñu woon jeneen yitte amuñu woon jeneen te àdduna taxul woon darajee àdduna taxul woon alali àdduna taxul woon waaye ngir gindiku ak di gindee te jëm yàlla ji rekk tax kon koo ci topp ci ñii rekk yaa ngi ci dëgg ñàkk bokk ak sa morom fu ngeen féete bu mu la tax a diingat na muy defe ndax loolu mooy ñàkk a wormaal gaa yu baax yooyu ñu tudd te ñu mat a weg lañ nag ñu mat a wormaal lañ mbokk yi ak turuq as suufiya yi ñu miin fii ci sunu réew mii muy ñu topp ak cheikh abdul qadir al jilaani muy ñu topp ak cheikh abul hasan al shadali muy ñu topp ak cheikh ahmad al tijaani muy ñi top cheikhuna cheikh al khadim yal na leen yàlla doli ngërëm ñom ñep ñom ñoñu ñax nga xamne ño taxawal yoon yoy genn djublu rek lañu am te ñoko bokkule muy bëgg yàlla jóg jëm ci jaare ko ci alquran ak sunna Mustafa sallallahu alayhi wasallam bëgg yàlla googu yi nag moo waral ñom sunu sang su tedd soosi seeni talibé ñom ñep muridullahi lañ leen da woyé boo démé seeni téré fek ko ca ñoom ñépp seenu dund dañ koo joxoon yàlla di ko liggéeyal ci diine ji di ko liggéeyal ci jaam ñi di xiirtal nit ñi ci yàlla seen borom di leen ca wamat jame ko nag ci alquran ak sunnas Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kon ku leen gën a kennal yàlla amut ku leen gën a wéetal yàlla amut ku leen gën a màggal yàlla amut amut kenn ku leen gën a nangu ne yàlla moom jaam ñi moo leen sant ñu jaamu ko te moom rek yaayu jaam ñoom ñépp liñ daa digal ñi aju ci ñoom ak di ko laabire seen mbokki jullit mooy ñu ragal yàlla jaamu ko bañ ko bokkaale ak dara te jaar ci tànk sayidina mustapha sallallahu Alaihi Wasallam, sallam te lii nag bokk yi ak njullit xaqam kon ku ci topp kenn ci ñooñu da nga koo war a jàppe sa mbokkum jullit bokki jullit kenn ku ne ci noonu yàlla digal na ko tere kenn ku ne li ko war kon mooy mu seet boppam njëkk ndax li ko yàlla digal lépp matale na ko wala déet ndax li ko yàlla tere lépp bàyyi na ko wala déet jéem a matale li la yàlla digal nag di jéem a bàyyi li la yàlla tere war na laa doyub liggéey sëkk walif di luññutu ak a jéebaane diw jëfewu ndigali yàlla yi bàyyiwu tere yàlla yi diw ni muy doxe ci diine ji nii du nii kenn ku ne ay wartéefam diggam ak boroom bu ca nekkee dina tënku ba du tal jingat ak ŋàññe mbokk yi yàlla dafa bind te yemalewut maye te tolloolewut wuutale daraja yi lool ak tolluwaayu xam-xam yi ñii mu nëbb leen ñii mu fësal leen moo tax maandu ci li la ump di lu war li war a doon sababu sàkk xam-xam nag mooy gindi ku njëkk nga xam ne yàlla dala wàcce àdduna digal na tere la nga war a xam lu lim la digal ak nokoy defé defee xam lu tamit lim nga tere ak nokoy koy moytoo te jëm ko matale waye xam-xam deefu ko sak ngir werante wala ëppalante ko wala woné ne xam nga te kat wa fawqa kulli dhi ilmin 'alim loko bari la bari la rek amna ko lu ko ëppale ne dégg bari gu bu fess du def bruit li ëpp solo rek moy di jëfe sa xam-xam bokki werante gi di nga tante gi weddente gi day waral du ñu mën a ànd du mën a booloo du ñu mën a bennoo te dafa bokk ci ndigali yàlla yi akub yónnenteem sallallahu alayhi wa sallam ñu benn la suñ bopp ñun jullit yépp te yàlla rek tax wa atasimu bi xam hablillahi jamian wala tafarraqu moom la suñ borom subhanahu wa taala wax kon lépp lu ñuy teqale war nañ koy daw kenn ci nun matut ànd gi booloo gi bennoo gi ci la ñuy mottulente ku bedd ko rek néew doole moo tax sallallahu alayhi wa sallam nenu aleykum biljamaa fa innama yakulu dibu alqasiyata min alganam booloo moonu war ku ci bedd ko rek seytaane man ko kon boo bëggee mucc bennool ak say bokki jullit ndax till gi gàtt bi génnee moroomam beru lay ayibal lii tax nga mucc nag boo tàbbee ci mbooloo mi mooy ne booloo gi yërmande yàlla la buñu bolo yàlla day soti yermande ci nun sallallahu alaihi wasallam moko wax al jamaatu rahma mbokki julit yi waruno setan kenn diñu jaxase lenn ni aduna tamit waruno teqale ndax ay bokk lañ ta mbokk deug moy sa mbokkum julit innamal mu'minuna ikhwa yàlla minu bind moko wax ay bokk nak waruno xiro waruno ngaayo waruno añanante waruno yenente ay dano wara benno jappo bu deugal tey dimbalante mbokk yi bu ngeen xoolee yu metti yi xew ca sunu bokki jullit yi ca Palestine bu dee wéy ba nëga ni ñàkk benn jullit yi rek moo ko waral loolu rek exemple la waaye bu jullit yépp bennoo woon ba doon wenn say di dimbalante te yàlla tax ku ci noonu lislaam bi nar laal dina xalaat la ko cay fekk muy jullit yépp jógandoo jàppale seen mbokk ci wane seenu naqar ci wax ak ci jëf bokk yi waruñoo noonoo ñoo bokkum non ñun jullit yépp ñoo sétan tamit ñu di ñu nonalé sunum non moy ki xex l'islam ta non bobu bu sañoon duñu bennoo mukk ngir mu man di amul bëggam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nak wax nañu sunu mbokko nu wara mel mune mathalul muminina fi tawadihim wa tarahumihim wa taatufihim mithla aljasadi wahid ida shtaka minhu udwun tadaaca lahu saairu ljasadi bisahari walxumma jullit yi ni ñu war a mel ci seen biir mooy bëggante lool yërëmante lool ñeewantente lool ba àgg ci mel ne yenn jëmm ñoom ñépp ndax jëmmi nit ki bu ca benn cër dee metti jëmm jépp a koy yëg li mu bëgg a wax rek mooy li ñu war a ëmbalante ci suñu xol ci cofeel ci yërmaale ci ñeewante war naa àgg ci ku ci am naqar nga bokk kook moom ku ci am bànneex nga bokk kook moom loolu di wundu ba tey ne sa moroom mu ci yàlla defali xéewal nga yéene ko ko te doo ci yéene kenn mukk lu bon lii dëggal loolu ba tey mooy li sallallahu alayhi wa wax ne laa yuminu ahadukum xata yuhibba li axihi maa yuhibbu li si kenn ci yéen du yàlla dëgg fi ak bëggalul moroomum jullitam li mu bëggal jëmmi boppam kon julli dëgg li mu bëggal boppam da koy bëggal mbokkum jullitam kon sa xol bi boo ci ëmbalee sa mbokkum jullit lenn loo xam ne yéene woo ko sa bopp sa ngëm yàlla des na dañoo war a bëggante soppante wóolante yéeneente jàmm bennoo di dimbalante jàppante bu dëgër nag sallallahu alayhi wa sallam wax na ne lii al muminu lil mumini kal bunyaan yashuddu baaduhu ba mu ne jullit bi dafa war a jàppante ak moroomum jullitam ba mel ne ni biri tabax bi jàppantee ba tabax bi taxaw taxawaay bu dëgër bokk yi ku la digal mbir ku ne nag tere na la sofaan ba kon sallallahu alayhi wa sallam tere nanu noonoo tere nanu teqalikoo tere nanu xàjjalikoo te képp ku jëfewul li yàlla digle moo ko yonenteem sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwoo li ñu tere faw nga dajeeg loola naqari bés bokk yi am nasaraan dafa waxoon ne

bañ a xeebante di yëkkateendoo di tegandoo ñi aju ci ñoom roy leen ca loola kenn ku ne nag ci taalibe yi jàppe kilifa ak moroomam ne kilifa ak boppam bokk yi fii ci sunum réew koo fi gis rek am na ci ku mbootu moo tax kilifa yi bu ñu booloo woon doon wenn say te yàlla rek tax tey diisoo li ñu bëgg ci réew mi rek kay am waaye bu ñii dee fas ñii di fecc dara duma sa jàppaloo